pare day yaakaar soxna sins day muñ ñaari koore moo amoon waaye bu boobaa dañ liggéey si koore bari na le temps de temps ni dañoo fi ku bëgg a nga def asi understand nga soo naa ñëw neen ñu ngi jënd suuf waaye ba léegi ñu mënuñoo satisfaire because da ngaa suuf ba pare nga yóbbu ko pour sori ko bi mu suuf dafa ndaw suuf bi gos da nga de suuf bi def see mu fees pe bu nee pe bu ko deppee doo dem na na satisfait client so def complain suuf dafa ndaw ba pare suuf bi baawul suuf bi government et puis sampa sax kenn doy suuf doo dem si ban projet government nga ca ba gaal fa sampa suuf bi nii suuf bi sa sa nga ca ba gaal ko sampa so waaye ñun suñ Thiès every year Thiès yi yaaw dañ dee taw ñu defar kenn mënut a am jama suuf bi baawul sa une totale baawul. baawul client nga koy complain baawul ñaaka pexe rek moo tax ñuy liggéey. parce que toog ni ñaaka liggéey tam loolu feeboo la foog nga liggéey waaye ñaaka pexe moo tax ñuy liggéey suuf bi. soo ñu ne bëgg nguur bi gars yi jàppale ñun ñun defee day yaakaar sonn depuis ci ñoom ñoom ñëw defee mënuñu am koore te amoo koore dafa am benn ñetti koore bu la nee nga dee yee bu la nee da ñun doomi gamé la soo ñu ngi toog pour liggéey pour ligal dëkk bi pour ligal dëkk bi pour ñu am dara so ñu ngi liggéey ne di am dara ku nekk si biti ko muy am dara ah, ko ñun dara ñu ah, fi wa day yaakaar muñ because amul koore ben koore amut su ne ko ñaari koore amna diko da dañoo dem liggéey ci benen koore waaye koore bi ifi koore jibooro bi mo jën koore bi fukk téeméeri yoon because koore jibooro so amee ñaari trip da nga di am lo buga waaye koore bi mu ngi liggéey fay trip sax do ca lo buga yaa ngi doo taba loo buga am na waaye gars yi dañuy yaakaar traité gi amul ñu dimbale soo mën a tey ñu gën si ak doole ñu ñëw bi ko dañuy yaakaar soo nag soo foog ñu traité du ñu ñu tam ñu mën a xanaa ñu mën a am lu mu buga parce que dafa yaakaar léegi pour bi mu dox la mu leen mu ne wala pour bi mu dox. waaw ñu nekkal liggéey ba pare ñoom ba pare ñoom duñ liggéey suuf boobu noonu. government doon nañ si benn nga ci fa gars yi ko liggéey suivi saaro bi suivi suivi lifi nga faa fekka suivi sane nga faa fekka te suivi sane bi nga am xaalis soo koy am soo ko am foog foog nga def dil foog dem dil nga mën a am suuf boobu noonu dil nga def nga am suuf boobu noonu soo waaye dat ñun suuf bi baax na loolu lu tax gars yi ñu ko liggéey seen projet yi soo ñun ñun lifin yi citizen yi ñoo la liggéey suuf bi suñ ñun suñ lifin bi xam nga loolu war na nekka man Mohamed laa tudd Mohamed Badji yee so ngeen jàppale